coalition Benno. Mais c'est parce que la situation demande une clarification. Vous ne m'entendez pas Le son. Ça ne dépend pas de moi. Hein. Je le mets comme ça. Ça va. Vous okay. Là, c'est bon Vous avez le son. Donc je disais que j'étais un peu désolé de devoir donner une réponse de parti dans le cadre de la coalition, puisque tous nos propos ce sont les propos de la coalition, ce sont des propos de Benno. Mais c'est par la façon dont la question a été posée et avec ce qu'elle induit comme euh, présupposé ou préoccupation que je me fais l'obligation d'apporter une réponse uniquement dans le sens de la, la, la clarification. Mais permettez-moi, avant d'y arriver, de revenir sur un point qui a peut-être échappé à la sagacité des journalistes. nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette lettre écrite par deux députés français envoyée à Madame Colonna, ministre en charge des relations internationales de la France, pour donner une injonction au Sénégal. Le Sénégal est un pays souverain. Pays souverain qui gère ses affaires intérieures et qui ne s'immisce pas dans la vie intérieure française. Et donc la France n'a pas le droit, ses députés n'ont pas le droit devenir venir s'immiscer dans notre vie intérieure pour avoir des points de vue qui caractérisent notre dispositif avec euh, ses appréhensions. Aujourd'hui, sur cette problématique de la tension sociale, les gens qui en parlent ignorent tous les faits et veulent discuter sur d'éventuelles conséquences qui pourraient conduire à une situation difficile. Parlons des faits. Les faits, ils sont simples. Nous avons un homme qui se croit au-dessus des lois et qui se croit au-dessus des hommes. Pour une affaire de procès, il veut mettre le pays à feu et à sang. Personne ne le laissera faire. C'était le mot principal de Bernot que l'ensemble de nos collègues qui ont pris la parole ont bien indiqué. Maintenant, pour la candidature, avec euh, ce que notre ami Gaston Massali semble poser comme une question délicate, c'est-à-dire pourquoi s'adressait d'abord à ses partisans avant de s'adresser au peuple. C'est ça le fond de la question. Puisque les temps ne sont pas les mêmes. Le temps de la candidature, c'est le temps de ses partisans. Mais le temps de l'élection, ce sera le temps du peuple sénégalais, puisque, on le sait, l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Ce temps viendra. Mais, première étape, c'est de parler à ses partisans, lesquels d'ailleurs sont très le terrain. Vous l'avez suivi depuis certains moments. Les partisans, ceux qui souhaitent président Macky soit candidat, l'expriment tous les jours dans des formats que vous de vastes pour défendre la et pour indiquer leur confiance renouvelée président Macky pour qu'il aille à la conquête des suffrages en 2024. Donc, du point de vue du séquençage temporel, c'est d'abord l'Alliance pour la République, ensuite une candidature portée devant le Benno, ensuite, quand viendra le temps de la campagne, le candidat s'adressera au peuple, puisque l'élection présidentielle, comme je l'ai dit, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Donc, il n'y a pas de désordre dans la chronologie et il n'y a pas de difficulté à comprendre cette rationalité, qui est une rationalité politique très voilà ce que je voulais ajouter soo leen bëggee ma def ko ci wolof parce que xam naa du ma teel si euh, gërëm leen sant leen di wax li ñuy jëkk lu balaa ñuy yëy yàbbi ci question bi ngeen ñu laaj mooy ñaawlu ñaari député France yi bind bataaxal jébbal ko seen ministre des affaires étrangères pour ñëw wax ci biir Sénégal seen yoon nekkul ci Sénégal Sénégal dëkk bu souverain la dugguñu seen i dëkk te Sénégal tension politique bi bu fekkee wax dëgg rekk wax na koy ragal la nekk di wax mooy waxuñu ci jëf ji fi am ci àlli kalat ji dañuy wax ci la ñu mën a ragal ëllëg bu leneen amee yeggaguñu foofu fi ñu ne nii li fi ne këtt ni jon tege fi ni tege ci loolu la ñuy wax mooy lan doomi sénégalais boo xam ne ëppul kenn ak ak yelleef doomi sénégalais boo xam ne leneen moom du wuy ji te dëkke tooñ parce que ku tooñ moom la kalaame ji pour ñu atte ko lañu ko wax lu yomb la tooñ nga indil firnde woo nañ la mënoo ko indi nga ne duma dem looloo indi coow li ba ay bakken rot ci du leneen la ñuy wax nag di ko njort ak loolu dafa jotagul donc ñun Sénégal nanguwuñu benn yoon ay député français di war a yëkkati kàddu di gàkkal sunu réew wala di am njort gu ñaaw ci suñu réew nan nu fonk parce que démocratie bi ñu yor démocratie bu authentique la tey jii sax liñu ñu xaw a dal mooy excès wu démocratie yi sax ñoo ñu xaw a jàpp kon du ko werante di yéey di tontu nag ci laaj bi mu ñu laaj naan lan moo tax président Macky Sall tontu ci interview am bi balaa muy ñëw di wax bu waxtu yu jotee dina wax mais balaa booba dina wax ak ay ñoñam maanaam mooy partem ak coalition bu mu bokk man leen loolu mooy yoon loolu mooy yoon ndaxte dafa am jamono joo xam ni ñun ñi bokk APR bés bu ne ànd ak bennoo bés bu ne ñi ngi amal ay daje yu yaatu di ko jox ñaari tegtal ànd ak yow ci suuxat république bi taxawal ko beneen bi jox la sunu yaakaar ak sunu kóolute ngir nga taxawal ñu 2024 loolooy génn ci daje yi ñu daje barki dem lañ ko def Kaolack feneen ak feneen ak feneen loolooy yoon wi parce que ni ñuy bindee élection wu Sénégal mooy dajale entre benn sénégalais ak askan wi bu waxtu woowu jotee nag ñun bu nu ko yebee ba sas ko ñu ko yow la yow la ñu yaakaar yow la jiital yow lañu ñu bëgg nga dem su boobaa mu joxe danoom askan wi ni leen nag lii laa bëgg ci réew mi lii laa ci fas yéene lii moo tax may dagaan seen i may dagaan seen i baat ngir mbir mi mën a sotti ak ndimbal suñu borom ñu woyal liggéey bi fii fiy liggéeyal te liggéey boo xam ni ñu bare am na ci njort rafet ñu bare am na ci njort rafet li ci des mooy na yëpp dal li ci des na gaay wàcc li ci des mooy ñu jongante ci li am njëriñ pour sénégalais yi rey doomi aadama doomi sénégalais amul njëriñ yàq liggéeykaay jàmbur amul njëriñ tere nit ki génn dem faju ji baaxul li ñu soxla mooy kan moo am ay pexe yu mu nas am alal ju mu dajale wuti ko jagleen ko soxla askan wi loolu moo am importance maintenant nag ñu bare nag dañ jàpp ni politique làmbu coow la ku fa ngemboo noppi doo am ndam moo tax ñun duñu ngemboo noppi ku ñu wax lu tontu lu ñu war a wax nañ ko wax mais li am solo mooy wax li avancé loo askan wi te looloo yéene président Macky Sall ci loolu lañ nekk yàlla na jàmm yàgg Sénégal yàlla na fi jàmm dellu si merci. merci Après, il paraît qu'il y a des journalistes qui ont en parole et qui ont qu'on relise à nouveau la déclaration en français. waaw ngeen baal très rapidement très rapidement ñu tontu te ñuy li ñuy def rek mooy ci ay kàddu yu gàtt comment waaw waaw li may bëgg a wax rek mooy s'il vous li ñu li ñu li ñu li ñu fas yéene def li ñu fas yéene def mooy li ñu waxoon ci njëlbeen ci ndorteel li mooy laaj yi ñu fi laaj ak tontu Bon, quand vous aurez fini, vous nous Si vous fini, vous nous Sinon, on peut. Si la conférence est terminée aussi, on peut arrêter. Maître Elège Aboudou Sall va faire un résumé en wolof de tout ce qui a été dit dans les questions sur l'essentiel du texte. Si tout le monde est prêt, on va on va Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Hein? Et pour que mu nekk la fàttali ne ñun conférence de presse la ñuy def depuis point de presse. Voilà. merci beaucoup kon euh, ci ci gàttal dañuy tënk rek li nga xam ne ne bi mooy ngi leen ñu fi laaj ki ma jëkk laaj mooy Serigne Gueye bu Walf muy wax ne euh, que Ousmane Sonko dafa joxe mot ne day ñaan sénégalais yi ñu takkal seen liggéey te bañ a topp liñ leen liñ leen di wax lu leen di nguur gi di wax bañ a liggéey def désobéissance yaar yaar rek lañ ko bëgg ton bi jiitu gis nañu ne saa su ne saa yu jógee day xarab yoon day xarab sax dëgg yéen a ngi fàttaliku bërki démb euh, dañuy def seen manifester bi mu paree mu ne dañ ko posone ne dañ ko dañ ko tuur poson ba mi ngi ci hôpital loolu moom moom moo ko waxal boppam ay ñoñam wax ne dañuy ñaan président Macky Sall mu delloo ko passeportam pour mu mën a dem bitim réew faju fa yéen ñëpp a ko dégg du ma tudd turu kenn waaye ñi mu àndal ni ñoom ñëpp wax nañ ko am na sax ñenn ci ñoom ñu ne bakkenam mi ngi ci diggante dund ak dee wax nañ ko dégg nañ ko bakkanam mi ngi woon ci diggante dund ak dee am na kenn ku ko seet génn ne Macky Sall kat soo ko bàyyiwul mu dem lu ko dal yawa yéen ñëpp yéen a ko gis yéen ñépp yéen a gis ñu jël ay photo génne ko ne diw mii moo ko tuur poson bi seetleen ko ngeen jàpp ko ngeen rey ko ba ñu demee ba ci biir lañu ñoo gis ne kookee ñuy wax dañ ko rey ndekk ci seen bopp ci ñoom la bokk ku ko doon jàppale la yore bineegar jël bineegar bi suy ko ci kolom ne xëy na su nooyee lacrymogène vinaigre boobu mooy tax mu mën a noyyi bu baax kon Ousmane Sonko ne dañ ko doon posone vinaigre lañ ko doon posone looloo tax muy ñaan ñu jëlal ko ay passeport am jox ko ko mu dem bitim réew mooy wax ne nag gis nga dëgg su ñëwee nañ ko wax Ousmane Sonko dañ ko tënk ki ko tënk mooy attekat bi tribunal tribunal ko tënk ne ko nañu jox sa passeport mënoo génn ci réew mi file ak man tribunal mayuma la sañ-sañ nga génn makki sal tënk ko yoonu makki sal nekku ci ki la tënk nag moo lay tënki soo bëggee tënku dangay dem ca ka tënk nga ne ko yow mii ma tënk dama bëgg nga tënki ma ci yoon naka lañuy ñuy dangay dem ca ka la tënk nga wut sa certificat médical ne tënk gi ma tënk kat laaj na nga dindi ko wala nga woyofal ko ndax damaa feebar dama war a faju walla dama war a dem fu ma neex doc tribunal mooy seet doctooram bi ko neex tànn doctooram ne docteur bi seetal ma ko ndegam am na feebar boo xam mën nañ ko tinki kon loolu aussi baax na ñu di ko fàttali kay doxee noonu am lu muy layool ab naata ngoom sénégalais ñu def ay naatango lañu sénégalais boobu leen dañ ko teg tuuma mu bëgg setal deram ne kaay leen ñu dem tribunal tribunal atte ñu ndegam yow tuuma loolee nga may teg dañ kaa dëggal walla dañu indi safaan la coow li yëpp loolu la diw da sàcc am naa firnde ne da ngaa sàcc la nga sàcc alalu réew mi la kookee mu ne danga ko sàcc mu ne man ñu dénk ma alalu réew mi sama moroomu sénégalais xool ma ba mu neex ko ci ay gët ne ma damaa sàcc loolu il faut que ñu dem tribunal mu wax fan la ko teg coow li coow li loolu la loolu jar na jar na jar xëccoo jar na xataraayu da ngay dem wane na la ngay wax dëgg la wala du dëgg soo amee dëgg ñu jox la dëgg soo amul dëgg ñu daan la Sénégal noonu la ma sa amee ba tey donc waa ji waaye nag su taxawee ne kenn du ko def dara ko du sotti noonu mu defee yoon dal ci kawam